salaamaaleykum mbokk internetu dakarnet.com comme ni ñu koy defee saa su nekkee di wër euh, kilifa yi ak euh, tàggatu Seydina Muhammad yi nekk fii Sénégal tey ñu amoon mbégte ak contentement di dalal suñu émission euh, kooru ndaanaan di ci dalal ku mel ni Modou Gallass Mbaye ku ko xam xamee ko ci xasaay di Maam Borom Tuubaay bu yëkkatee xol yëpp sedd na bu duggee ki kilifa boobu di Serigne Fallou Mbacké duñ def lu jox joxo kàddu yi mu nuyoo rek après ñu dikk ak moom ci waxtaan sëñ ñu di la ziar. ñu ngi leen di fay aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci sangub sang yi sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaye di dellu suñu kóolite ak suñu yaakaar ci cheikhuna ahmadul xadim di ñaanal sëriñ muhammadul muntaxa suñu borom bàyyi ko ci suñu kanam noonu lañ koy ñaanal sëñ Abu Baraka mi toog jataay bi cheikh mamadou waaye di ko ñaanal képp koo xamante ni sol nga saw daal te lislaam tax nga sol ko di nuyu nag sunu sëriñ sunu wéeruwaay sunu jaarukaay ci seexul xaddim mm-hmm. cheikh Mouhamadou Mourtada moom cheikh Mouhamadou Fadal ak rakkam ju baax ji soxna maam Faati mm-hmm. eh, képp koy jàkkaarloo ñu ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah mm-hmm. waaw ah, mi ngi noonu kooku mooy Modou Gallass mbaa yaakaar naa ne ñi ko doon laajte naan fan la nekk tey yaakaar naa ne bu ñu ko gisee tey jii nañ kontaan alors duñ def lu dul rek dugg ci waxtaan bi ah, li ñu koy njëkk laaj mooy que ni ah, sa sëñ Modou Gallass est-ce que ñoo xam sa débuté sa jaar-jaar ci wàllu njàng ba tey nga yegg ci fii tey loolu la ñu doon laajte lan nga ñuy wax bu ñu doon wax tey sa jaar-jaar. waaw sant yàlla bu baax ñu sunu ay waajur wu góor ak wu jigéen di leen ñaanal sunu borom bàyyi leen ci sunu kanam. yàlla moo dogal sëriñ Modou Garas Mbaye euh, yàlla jaarale ko ci ñaari waajur yu baax muy Alaaji Seex Mbaye moom sëriñ Saliou ak soxna Gaal Mbub ñu ngi leen di nuyu te di leen bi yàlla dogalee ñu mat a dem ci daara ji tamit sunu waajur jël nu yóbbu nu ci daara sëriñ Saliou euh, fa la ñu tàmbalee jàng alxuraan ba liñ ci xam ñu xam ko waaye ku mel daara sëriñ Saliou rek xam nga min nga fa boo jàngee alxuraan lu ci ëpp ci ngoon gi dañ lay jàngal tëralal xasaayit nga jàng ko foofu lan doori sunu njàngoom xasaayit euh, ci bi nekk ci daara ji rek. waaw mhm. mhm. ah, ah, kilifa boobu noonu di sëñ Saalu tey ji nga xam ne ah, ci daaram fa nga fa dooree fa nga jàngee tey boo ñu doon wax tey ci moom ci yan qualité nga ñuy wax ci euh, sëñ Saalu. waaw damay faral di wax ni man benn jikko rek laay roy ci sëñ Saalu muy yaru. waaw doon mag mag ñëpp ba pare jiite yoonu murit ak ni mu waaye gën a yaru ñëpp mm-hmm. ndeysaan macha allah loolu uh, uh, neex naa dégg aussi tamit uh, li li ñu ñëwaat rek mooy sëñ Modou Gallass est-ce ñoo xam foo dooree foo commencé jàng Dakar fii nan demee sa jàng fii Dakar waaw bi ñu jógee ci daara ji la ñu ñëw sow mm-hmm. nekk di jàng mi métier téyeer ba yàlla dogal ñu man ko comme ni ko ñëpp ma ne Euh, bi ni ñëw nag tàmbali nañ njàng mi waaye ndakaaru nag la la lan lan ko tàmbalee dëgg dëgg dëgg tàmbali. waaw métier am moom lan def moom lan def ba suñu patron ñaanal nu ci. waaye nag euh, li may faral di wax rek xasida yi moom. Mm-hmm. fu mu dugg rek toxal la fa nekk. Mm-hmm. ndax moom xajandoowul ak mbir ci fenn. aussi tamit ñu xam tamit ah, kan sëñ Modou Galass waaw loolu xam naa dina jafe xam waaye daal euh, guddi gi ma njëkk a fanaane daal maa fanaane dëkk euh, koñ bu ñuy wax ginnaaw raay mango yi ñu ko daan wax koñu mango yi ginnaaw raay ci boori post Thiaroye mhm. foofu daal laa njëkk a fanaane guddi. Mhm. Mhm. waaw comme ni ko waxee di ko fanaanu guddi ñu gisoon tamit mu defoon album boo xam ne sénégalais yi ak àdduna duñ ko fàtte mu dëpp ci woon sëñ Fallou macha allah ko xam tey jii ci loolu nga ko xamee ah, lu ñu def ak du dul laaj ko ah, album boobu noonu nan nga ko doon préparé ak fan la jógee ba tey jii képp ku ne sëñ Modou Galass Mbaye rek xel yëpp day dem ah, ci album boobu dafa woon duppeeku sëriñ Fallou. waaw album bi moom li nga ci wax rek kenn ci way moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko wane. Mhm. ampleur bi ci am tamit moom la ñun du ñun. Mhm. ndax ñun dañ doon nittali rek ay jalooreem. Mhm. ay jalooreem nag boo ko doon nittali da ngay dugg ci ay jalooreem ndax sama benn xarit bu baax daf may faral di wax ni ma yow ku la seen rek xelam dem ci sëñ Fallou lool nag. du du dara du njàmbaar du jaamu yàlla waaye bëgg gin ko bëgg rek. te di fas yéene di nit ay jalooreem. album mboobu deux mille deux mille quatre la woon xam naa fii ak ñaari at mu am mu am vingt ans. Mhm. waaw kon sant yàlla te dafa mel ni tey jii la gën a xew. Mhm. li ko waral nag mooy kiñ ci ñu tile ay jolooreem. Mhm. muy Cheikh Mamadou Fadal mi nga xamante ni amuñu ko ñaar moom rek la na ñu euh, gisoon tamit nangoon nañ la loolu gars yi sax ñu ngi naan sëñ Modou Gallass ji passé Covid woon na ci yéen jàngkat yi ñu ah, ko doon dundee en tant waaw santaat ci yàlla bu baax gën a gën cee gëmaat nag sëriñ bi ndax fan yi rek wax naa ko ci benn jataay bu nu jataayoon. Mm-hmm. ma leen gëmal naa Sëriñ Tuubaa ba palaa fane waaye nag gën naa ko gëmaat ci. li ñuy wax Covid 19 bi bi mu fi ñëwee ci senegal ndax euh, jumtukaay yi nga xamante ni moom lañ daan dem di ci yëngu. Mm-hmm. dem ci àll bi di jàngi di def ay tournée ci àll bi. Mm-hmm. yëpp dañ ko arrêté woon. Mm-hmm. waaye sëñ bi moom arrêté wul daraam. waaw sëñ bi moom euh, dafa mel ni sax bi nu arrêté bi gars yi ne dañuy arrêté loolu. dafa mel ni moom ci la ñëwee. waaw sant yàlla bu baax. comme ni mu ko waxee rek nee na moom ah, sëñ bi lépp rek da cee teg loxo ci wàllu ah, problème bi fi amoon di ah, Covid bi dañoo gis tamit aussi sa relation ak ak jàngkat yi ñu bëggoon tey tey lan nga ñu ci leeral sa diggante ak jàngkat xanaa nag jàmm rek ak salaam ndax. Mm-hmm. sëriñ bi moom asamaan la. Mm-hmm. jërul puusal ma toog jërul tamit puusal damay xool. Mm-hmm. kenn ko ne fa nga nekk di ci yëngu sëriñ bi dina la fa fekk ak lam la fa war a fekkee euh, ci boo ko xeebul ndax euh, sëñ Abdoulahat Mbàkke yal na yàlla dolli ay leeram dafa foo xam ne àdduna moom luy doy am fi mm-hmm. lu ñuy doyloo rekk fi nekk tëj baat boo xamante ni dangit moom a gënal lépp mooy ku lay jaay bari la xaar ko ci loo am mu doy la mm-hmm. kon sëñ bi moom ñi ma ko seqal te yàlla dogal ñu nuy wax ñi ñuy tudd ci réew mi ñëpp lañ amal jàmm yéene nañ ñëpp jàmm li tax ñu yéene ñëpp jàmm tamit kenn ku ne la nga yor ñu yéene la ko ñun bëgg noo doon kenn ñun Modou Galass rek lañ bëgg a doon mhm. comme ni nga ko waxee déedéet moom Modou Galass rek la bëgg a doon aussi ñu gis tamit ah, ñu bari xamee la ci Modou Galass ñu ngi laaj euh, tur boobu noonu nga dàqantal ni Serigne ko ci boole wala wala nan la demee quoi euh, ñu euh, nit ñi duñu xam kan la ñuy wax ñu doon laaj. waaw sëñ Fallou xam nga li ma la wax léegi rek ci ay jalooreem. Mm-hmm. Mm, man sama bëgg ak moom amuluma ko limite. Mm-hmm. bëgguma sax di ci xuus parce que buñ ci xuusee rek wax jotaay mën naa soppeeku. Mm-hmm. waaye sëñ Fallou maa jël sama tur. Mm-hmm. dugal ci aw turam. soppi ko ci sama lépp nag samay kayit ak sama yëpp. Mm-hmm. est-ce que mën nañoo xam toog nga benn moment nga jaaxle na ah man jaaxle naa xaama ah, ah, moom nag boo ko gëmee tamit dëgg du xaar ngay jaaxle.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 نبي وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما يا مكرم الذيب جارا كان وسارا يا ماهيا عن خدي من قبل وسارا البر بعد البر قادمك واليوم قلت له بالله مغتارا أكرمت بغير أمن وتكرمة فاز عن جملة لسواي الدارا خليت سوى رضوان قبل كما عليت بالمنى الدارين مبرارا بك تاصره لله مرتديا عنكم خداسا أنوارا وأسرارا آمنت من سقاء فايسا أبدا غلا وعبا لكم لا يدخل النار نال المنام صفى ما بعد أوتنا من مصر منه عند الباردين نارا من سر له تعيس تعد أبدا كما لو خاتما يا الله ولا الليل بأحسن منصرفا وكل ما فيه ذر نباتارا لخيرية إبليس في أبد كواه ربك تعميلا وكدارا نفسي تفضيل غدارة إني لجرك آخر الورى أبدا عليك سلم من كل الوسارة صلى وسلم بأخي لا شريك له عليك يا من به لغدا سارة لي غدم لبتي خديت لي وربي ما أوتان يا قبل اليوم يمسارا بسم إلهك بركب سيخ فضلني بري الله دللو أي مقام الله بسم إلهك ci barkeb Sëriñ mi buur yàlla doon lenu ay maqaama yàllaahu xalbuka wala sadaati maay bëgg a way tey jii ma way fii sangu góor ñëpp yàllaahu kooka di Seex Fallu kooka mag moo rëy biir moo gën ñu gën ñi ñëpp yàlla ku mel ni moom musu fee mu ku doodu wi am te am fii ci duniya wur na yàlla tey jii ma jël Seexuna Sëriñ Fallu mbër ma ni mees mboolem lu nekk ci dunya juy na yàllaahu murid yi xaadir yi ak tijaan yi ñëpp ko jooy ak suuf seeg gi ngeen di fekk weer wi ak biddi li lépp suuf jooy ak guddo yi ak njanaw yeeg njay àll yàllaahu malaayika jinne ak yéen ñi lépp ko jooy ak sawe ak xuddub yaag wàlli yàllaahu wii dal lu ci duniyaa yëpp kullu ruu yëpp jooy nan ko cey séqal yàlla jullit yi ak nguur gi ak àddina ñi bëgg a jooy nunu jooy nan ko ngir baaxal nga yàlla nawet ba jooy na ba fa gàncax ga lodd na boobee ruur yépp jàq naan sëriñ wàllu yàlla mboolem lu nekk ci dunya lépp lépp nga ko jooy nu xam nu xamul mboolem lépp yàlla masin la ñëw moo la way way wii di sàkk ngërëm ci yàlla ak sëriñ Tuubaa ba yàlla ak sëñ sëñ yamaar la ko wax ak doole jàng mbaya ak xarbax yàllaahu xiima joy falu laay masil la ñëw na dem zaab sëriñ zaab xarit cey maa sant yàllaahu fekk àddunay tukki ñuy wax jëf ju baax mu def ku def ñu waxal la ko moo def lépp yàllaahu jiital sëriñ Bamba ak bu yàlla moo rëy biir mooy jiitu duniyaa uxraa faw yàllaahu jiital yuuru na du mbaa xam li dëj la wëree sëriñ Fallu rekk da jaay sañ-sañ yi ak doole jaag xar pax yàllaahu kuy rëbb gaynde yër ak lesbeer asal du ko jëmma bal ba du ko li wër ni yàllaahu waykat yi lay leebu ngir wax gi tuuti ñu wax sëriñ Fallu gaynde la moo man góor mooy doomi saamaan situ njàngoor ko jógi li way ku tooñ sëriñ Fallu doo too dolli yàllaahu sëriñ Fallu mooy ab sëriif moo yaatu moo bari ngor moo yor mu ñug suuf te Fallu yaatu yàllaahu moom daana bëgg ku jëm niiraan mu ñu di ko fago yërëm ko tàbbal ko fil jannaati yallaahu moom daana fekk ku yor bakkaar ba xool ba delim mu fóot ko laabal ko bam leer nañ yàlla moom daana fekk ku fan way géex mooy ku fanam mooy ku saa fan wi kiy sëriñ bàll yàllaaw di bara tuuba ba leeral lépp bam ni ba yaax buur yàlla leeral ko moo seex bamba yàllaaw tuuba ngi lampi tuuba ngi lampi ndox mag lépp moo ko fi def moo xotti mbedd bi leeral lépp yàlla jumaa ji moo ko tabax ba mu àgg mat na bu wér daa jiite nuy julli moo man góor ñi yàlla ogaasi moo ko fa def rëy armeel yi moo ko tabax bam yaatu yàllaahu muy kuyunu sëñ Tuubay muy gi bi gën bam yaatu kap wa daj adduna yàllaahu du denc mukk alal lu ñëw mu fat ko joxe te bam ga gàcceel na wax sirwur na yàllaahu yawmal qiyaamati yawmal asli buñ ca demee sëriñ bamba jiital ko moo miiram yàlla ku sopp sëriñ fallu mooy tabbi jannatu ku noonu sëriñ fallu tabbi jannatu ku baay benn mooy diinaari yàlla alhamdulilah yow yaa rabbi kenn bañu la bur yàlla seede ne lii sëriñ Saaliw kenn bañu la na ngeen ma diglu te sellal xol yi koy wut a xam lu nekk man la ko xam yaram bi kenn bañu la te lii ma lay wax yàlla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 ndeysaan ak saa yaakaar naa ne xol yi sedd na ñu ko namoon euh, di Serigne euh, Modou Gallass Mbaye euh, ñëpp ko doon laaj tey yaakaar naa tey ji ko dégg sa xol tey dina feex lu mu yëkkati ci xasaayit pare di ko ñu sëñ Fallou boo xam ne ndeysaan fu mu ko jàng rek yëpp fees xol yëpp tooy du ñu def du jox ko yi parce que xam naa ni temps yi jeex ba pare aussi tamit dañoo ñëw jël temps bu bari. duñ dafa dul jox ko mu tàggatoo di ko xamal ni daal tey jii waa Dakarnet ah, kontaan nañ bokk internet di koy seetaan yëpp di ñu jox rek jox ko mu tàggatoo. waaw santaat yàlla bu baax rek di ñaan weeru koor gi yan tàmbali nañ ko ci jàmm. ñaan yàlla nañ ko jeexal ci jàmm. luñ ci jaamu tamit yàlla nañ ko yàlla nangul. te làqal na ko fa ak yàq jëmut. maa ngi nuyu soppe yëpp. Mm-hmm. waaye duma ma tudd sama xarit. Mm-hmm. sama wëllëre. sama mbokkum taalibe colonel Ousmane fay mhm. maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal sunu borom dolli ay xéewalam dolli ay teraangaam ci barke Cheikh Khadim mhm. noonu laay ñaanal tamit sama wëlëre bu baax boo xam ne ñoo bokk Cheikh Amadou Fadal ñu koy wax Insa Diallo bëgg sëñ mu fa bëgg Cheikh Amadou Fadal. waaye di nuyu daayira bëgg Cheikh Amadou Fadal bi nga xam ne ci laa bokk. Mhm. di nuyu soppe yi ak wëlëre ak xarit yi. di nuyu tamit képp koo xamante ni yaa ngi jàkkaarloog sunu jëmm. ngi lay jox sunu loxoy xol. te di la wax asalaamualeykum wa rahmatullah. ndeysaan mi ngi noonu tey ah, sëñ Modou Galass Mbaye lañ dalaloon kii ci dakarnet.com ci émission bu mag bi di ah, kooru ndaanaan dañu def lu dul rek xam naa di leen joxaat di daje ak beneen beneen naa Seydina Mouhamed ah, beneen kii rek incha allah ñu def ko ci kàttanu yàlla di leen jaajëfal di gërëm biisu moom it maa ngi koy gërëm di ko sant. moom it di ko gërëm parce que bi ñu ko woowee rek dañoo yombalal affaire yi di di di waxaat rek ci moom ah, oyof gu mu oyof di ko ñaanal lu mu bëgg ah, ci xasaay di ci mam borom Touba yàlla na ko suñu borom defal ci barke koor bi jaajëf.